Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakatuhu mbokk yi ñuy top ci chaîne bi di TDV ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax ñu ngi fi ci kër mam Cheikh euh yeen nag ñu gis ñu ngi ci daara ji fi ngeen di gis euh, ndong yi nekk euh di def li nga xam si mooy jangum alquran bi nga xamanteni ci dara gënu ko tedd ci li di diine Islam. kër mam Cheikh mbay nak euh, dañ fi ñëw tay ngir euh, seet ci ki nga xamni mom moy suñu jëwriñ la luñu bëgg ci kër maam Cheikh mbay ci mom la jaar muy Serigne Ndiaga Mbaye mom itam mu nekk ko xamni mi ngi ci waar wi di liggéey liggéeyal islam di liggéeyal diini ji di liggéeyal umma al islam ñëm ñëpp Serigne Ndiaga dañ lay bàyyi rek nga nuyoog euh, wa internet yu TDB incha allah. waaw jërëjëf sëñ maam Ousmane gannaaw bi sant yàlla julli si yéen sallallahu alayhi wasallam ñu ngi lay nuyu yow mi nga xamante ni si yaa yor liggéey bi di nuyu tamit ñi nga xamante ni si ñoo ñuy seetaan di nuyu tamit kep ko xamanteni dal euh lislaam ñor na la rek ñu ngi lay wax alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu tamit mbokk yi nga xamanteni ni si ñun ñepp ñoo bokk Cheikh Amadou Kabir mbay ak duñ ko bokké rek ñom ñepp ñi ngi leen nuyu baax baax baax di ñaanal khalifa bi bu yàgg fi lol te wér ak njabot gi ñepp ñom ñepp ñi ngi leen ñaanal baax a baax baax euh Serigne jaga ñi ngi jublu li nga xamni ni gamu fi ci kër gi naka lañuy ñuy gamu gi inshallah wa jere jërëjëf seigne Ousmane xana ba lañu ak sax nan la ne waajale gamu gi moy sante maam Cheikh mbay bi nga xamanteni si moñu xalal yoonu gamu ndax tay keur mam Cheikh Mbaye bu fekente ci fami mam Cheikh Mbaye dañi gamu ka tax ñoy gamu seen kilifa di mam Cheikh Kabir Mbaye malam mo leen wan gamu. wax leen njariñ li xirtal leen si ban man ko def kon mam Cheikh Mbaye momu yalla nañu ko fayal ba nga xamanteni ci lim li ci njabot gi moy jamono ji nekk rek bu gamu jote ñu ñëw fekk ko gamu ak mom yalla nañu ko yalla yombalal ba dañ koy defé ni ko bëgge nonu ndax mom dana wax naan képp ko xamanteni sama njabon nga sama talibé nga bu gàmmu jotee boo amutoon naga sax na nga jaay sa mbubb ñëw gàmmu si ak man kon kooku moom tegtal na ne taalibe yi dana war a gàmmu si kon maam Cheikh mbay moom ñu ngi koy sant bu baax a baax te di ko gërëm euh, ni ne waajale gàmm gi nag waajtaay yu am solo la bokk na si waajtaay yi nga xamante si moom la ne waajale gàmm gi mooy njàngum alxuraan mu bëri ndax fi mu nii daara yu bëree bëree bëree bëri jox na leen digal ba si daara jii nii bis bi nekk danañ jàng ñetti kaamil euh, ji nekk tamit danañ jàng juróomi kaamil fës ki yéene ko waajale gàmm gi nga xamante ni si moom la dëgmal kon loolu benn wàccaay la beneen bi tamit ñi ngi waa ñi ngi waxtaan ak njaboot gi ku si nekk rek taxawaay ba nga mën a taxaw si gàmm gi rek maanaam nga taxawee ko bu dee wàllu cet gee tamit set setal yeeg yi xam moo si aju tamit am nañu ko commencé taxawee maam daal ñi ngi communiqué daal ak njaboot gi si lépp loo xamante ni daal maanaam dafa laaj gàmm gi da koo laaj rek maanaam ñu taxawee ko noonu incha ñaata at ñi ngi gàmm fii ci kër maam Cheikh Mbaye niveau gàmm gi fu mu toll waaw niveau gàmm gi moom nekk na gàmm koo xamante ni si euh, gàmm gu yaatu la ko daj réew mi la ndax fu nekk si biir réew mi maanaam doomu aadama dana fa jógee maanaam gàmmu si ndax gàmm maam Cheikh mbay léegi nekkutul rek ne taalibe maam Cheikh mbay rek ñooy gàmmu si waaye képp koo xamante moom da bëgg lu baax wala maam Cheikh Mbaye ñor la wala dégg xam-xam bu wér si yonent bi sallallahu alayhi ñor la wala tamit sa bopp ubbeeku si yonent bi sallallahu alayhi ñor la maanaam yaa ngi ñëw si gàmmug maam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye gii gàmm gi nag gàmm ko yàgg am dimension la dimension bu kawee la la yàgg am maam Cheikh Mbaye mi ko xam moo ko taxawaloon ba mu ko daan gàmm maanaam da daan nekk gàmm ko yaatoo yaatoo ndax dafa yaataloon njabootam yi ko mos a wuutu yëpp tamit biñ ko wuutoo tamit ku si nekk rek maanaam da nga daan bay sawaar si gàmm gi ngir mu gën a yaatu ba léegi si suñ jamono ji tamit gàmm gi képp koo xam yaa ngi biir Sénégal rawatina yaa ngi njaaboor ak li ko wër maanaam umpatu la ndax gàmm la goo xamante ni si fu nekk la waaye di jóge si biir réew mi manam di gàmmu si keur mam Cheikh ahmed Kabir mbay kon gàmm la goo xamante ni si gàmm xeetu yenn sans salam ñëpp ko bokku kon gàmm go yaato yaato la sëñ Ousmane. mu wara don doon euh, loo xam ni gi ñu bari ñoo fiy daje si mo taseeg ñaari contest muy mbas mi ak euh, li nga xamni moy nawet bi naka ngeen koy wajale wa ñaar yoy yep mom ben du ci galankor bu de nawet mom gàmm yag na fekke ak nawet ñun boo gane aduna ba legi tamit beur na gàmm yo xamanteni ni si nawet lay tombal ba si daaw moo si mujj kon manam gamu mom man nawet du gàllankooram bu dee mbas mi tamit euh, yalla mo fi andi mbas mi euh nin koy wajal rek moy ñaan yalla mu musal kep ko xamanteni genn nga sa kër wara ñew gam si sun borom tawataala musal la ba benn jafé jafé manam du la gàllankoor nga wat sa kër comme nang fa genné won kon biru mbas mi mom dañ koy jël rek tegaat ko ci loxoy yalla lu nak manam sabab yi nga xamanteni mom, day day day day day tax mala wala sabab yi nga xamanteni ci si la docteur yi wane ne dana tax dana sax a mucc mooy mooy sel yeeg masque yeeg yu demee noonu moom dispositions yi moom incha allah danañ ko jël incha allah. Euh, am na solo kon euh, mu nekk loo xam ni yóbbal la ci képp koo xam ni yaa ngi waaj pour ñëw euh, gàmm si fi nga xam ni mooy kër maam Cheikh Mbaye ñu toog ki nga xam ni mooy Serigne Ndiaga mbay ñu xam ko bu baax si terrain bi waaye tamit di njaboot ci ki nga xam ni mooy actuel xalifa di Serigne Sayar mbay bu fekkee am na message yoo bëgg a jàllale jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy fidèles yi ñi nga xam ne ñoo war a ñëw fekk si gàmm gi lan lay doon. waaw jërëjëf sëñ Maam Ousmane gàmm gi moom yonent sans la moo ko moom kon képp koo xam ne da ngay gàmm si rek nga xamante ni si euh, sa kilifa moo la woo si kilifaam sa kilifa moo la woo mooy maam Cheikh Mbaye moo la woo si kilifaam di yonent sa sallallahu alayhi wa sallam kon képp koo xamante ni si maam gàmmu kër maam Cheikh ñor na la rek booy dikk maanaam nga lënkale ko ak l'islam maam gàmm gi nga fexe ba lënkaloo ak gàmm nga ko fexe tamit ba mu dëppoo ak sunna am na programme yu yaatu yoo xamante ni si maanaam dana am si gàmm gi buñ xëyee suba wàcceeb alxuraan mi waa kook yi danañ ñëw danañ jàng danañ fi jàng kaamil yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri naka noonu tamit jullit bu nekk jaamu yàlla ga nga man moo xam bëccëg gi moo xam moo xam guddi gi la loolu lépp ay xeeti programme la yoo xamante day am si si gàmm gi même sax bu nee suba la gàmm gi si ngoonu tàkkusaanu bu nee suba gàmm si tàkkusaan gi am na tàkkusaan goo xam ne dañ koy def mu tudd tàkkusaanu ndaw ñi nga xam ndaw ñi comme dañu gàmm si faaw tamit maanaam ñu lancé leen ay message yoo xam message su diina la yoo xamante ni danañ mën a bàyyi xel seen adduna danañ mën a bàyyi xel seen seen alaxira danañ mën a bàyyi xel tamit yàlla mi leen bind danañ mën a bàyyi xel seen diine danañ am tamit loo xam dana si mën a sukk sukkandiku ba ba ba ba ba déwén di jotaat moo xam moo loolu tam tàkkusaanu ndaw ñi lay doon boo xamante bu ne suba la gàmm danañ ko def beneen bi tamit moo di ne kër maam Cheikh Mbaye moom kër goo fa dugg rek boo dikkee da nga fa fekk bu dëgër kër goo fa dugg boo fa demee danañ fa waxtaane l'islam danañ fa lu baax Dan fa yëkkati xasaayid yi maanaam lépp loo xam ne maanaam day dundal xol day tooyal xol rek kër goo dugg si biir kër maam Cheikh Mbaye yi fii si biir Louga maam loolu da ko fekk kon liñ fës ki yéene wax foofu rek moo dina daal képp koo xam maam da ngaa gàmm si nga fës ki yéene taataan ak mbaax ndax gàmm gi moom si ak mbaax la tàmbalee si ak mbaax la yem duñu jeexal suñu waxtee laaju ñu la da nga tudd benn baat mooy gàmm gi dañ koy teg sunna te dégg ci écho ñu neen gàmm bi daal aramal ko en tant que ko xamni kilifa diine nga di gudd euh, lan ngay dalale xelu ñi nga xamni man nañu dem ba di sikki sak ci wax joju lan nga leen di dalale won leen gamu fi mu tegu waa gàmm moom euh, borom xam-xam yi ku dekk ak sa gis-gis am nañ ci am ñoo xamni li leen formé ci formation bobu leen leen jox mais doyna la rek ne manam gamu manam nekkut bi laa moo ne dañ neewon yeen yéen sànq sànq defu ko woon mais yéen sànq sànq da na ko def ci aw defin comme mom da màggal magal da bi wor bisu buñ ko lu tax ngay wor bisu alté mo ne man sila gané aduna kon koku mi nga bàyyi xel manam bisu gané adunam nak nante tamit sallallahu alayhi wasallam sun mbégte dan ko wara a ci mom ta bisu mbégte ku nek man ko koy fee sa mbég si yone sa man ko koy feeñal si sa kër waye nak ñun ñëpp ñu dajé feeñalal doko ko loolu rek force la bo xamanteni ci dana ragal lo. képp ko xam ne l'islam ñuru la rek manam nga xamanteni ci si sallallahu alayhi wasallam ñi ñu nek ci gannaawam rek lool lo bëggoon def ci diiné ji rek manam dana dana tax nga tay lool lool rek dafa dafa doon sëkk dalil manam ñukay def benen tamit def gi koy def defuñu ci lenn lo xamanteni ci islam dako dak bu den njàngum alquran islam dako ko bu de dajale ay nit di len war islam dako ko bu de dajale ay nit di len berne Islam dako ko bu de tamit sa bokku mo gën mo moo gis ngeen dajee nga wan ko sa mbégte mu wan la mbégteem nga wan ko sa namel mu wan la namelam kooku manam nikut lenn lo xamni manam lu islam faxas la dak la ta tamit limay faral di wax islam si jamono ji de akhiru zaman buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko wutul ay ndaje iblis mom dana jël ay ñoñam ñu wut ay ndaje ba mu mëdd lepp lepp lepp lu baax kon dafa mel ne maanaam euh, ay gàmmu ak yeneen xew-xew diine yi xew-xew la yoo xam ngir jàmmaarloo ko safaan parce que comme xew-xew yi safaan yi dafa bëri tan nit ñi ñu bëree bëree bëree bëri maam seen bopp boo ko ubbiwut war leen leneen loo xam ne moom lan moom danaan jaawale lin moom ak leneen loo xam ne waruñu ko woon moom ñu dem tàbbal si seen bopp mu nekk alkande si ñoom kon gàmm moom nekkul nekk na loo xamante ni maanaam maanaam waxuma la bi daa waaye ko sax jegewu ko macha allah loolu leeral la bu am solo boo xam ni képp koo xam ne si fidèle nga kuy njaboot rek war nga ko euh, dégg ak xel bu baax a baax xam ni li ñuy def du luñ làmbaatu kon mag ñi nekkuñu fi woon di làmbaatu indi di jox nit ñi waaye lu concret la ñu am waaye tamit loo xamante ni si lu ñu teg ci sunna la woon kon gamu kenn mënu ko fi jëlee ci anam boo xam ne da koy xaraamal bu fekkee teg nañ ko ci anam bi nga xam ne si moom lañ ko euh, muy tegin wi euh, sëriñ bi lan ngay tàggatoo mbokk yi. waaw sant yàlla rek te ñaan yàlla maanaam mu yóbbu ñu si maanaam si gàmmu ñaan yàlla tamit mu ubbi suñu bopp ban def ko defit woo xamante ni si dana dëppoog ki nga xamanteni ci moko wote won bëgg-bëggam ñaan yalla tamit lepp lo xam ne gàllankoor la rek yalla ñuko yalla dakal lepp lo xam yomb yomb la nak suñu borom taal yombalal ñu ban def ko din ko bëgge kon di sant ñepp di wa ñëpp alaykum wa rahmatullahi wa wa alaykum salaam wa rahmatullahi mbokk internet yu euh, TDV li moy li nga xamni mom lañu jël ci won fi ci kër euh, mam Cheikh mbay waye nak euh, sekkon ko ak ki nga xamni mom moy Serigne Ndiaga mbay di Serigne dara waye tamit di kilifa gu mak ndax bok ci njabootu Euh, maam Cheikh mbay rek euh, doy na titre waaye doy na tur waaye tamit euh, di njaboot ci nga xam ni mooy Serigne Sayer mbay toogal fi tey ki nga xam ni mooy Serigne maam Cheikh mbay mbokk yi loolu la woon ñu jaajëfal leen bu baax a baax salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.